ñi ngeeg euh, Maxu euh, Mandela moom mooy borom këru euh, Coro Mandela bi nga xam ne mooy liggéey ci Walfajri jamono yi yoon teg ko loxo ci coow loolu ñuy tuddee topp kaa Maxu liñ lay njëkk a laaj moo di xam naa ne war nga gis Coro nan nga ko fekkee ci biir kaso bi mu nekk di camp

et les pénitenciers font de leur mieux pour que mon être dans de bonnes conditions. Donc c'est très difficile pour elle. C'est pas facile, hein. c'est vraiment difficile. Mais bon, que tu y as là, y ci y là, parce que tamit tu euh, situation bi mu bi mu nekk Mm-hmm. bon, je pense de ci mais bon c'est pas c'est pas c'est pas facile c'est vraiment pas facile pour elle mais bon yàlla baax na yàlla baax na rek lañu lañu lañ ci mën a wax euh, dem nañ pour le moment mënuñu ko mënuñu ko gis euh, parce que amaguñu joxaguñu autorisation ñu gis mais bon euh, jotoon na def benn appel expliquer expliquer limu mu bëggoon li soxla woon foofu yu ci ëpp euh, comme xamaguñu limu euh, limu li war a am foofu yëpp yóbbu na ñi nga xamante ni bon euh, yaakaar nañu ne soxla na ko am na yenn yu ñu yu ñu yu ñu delloo nañu du dugg am na yenn yoo xam ni tamit donc jël nañ ko donc c'est pas facile mais bon on essaye de de de s'adapter waaw euh, maxu man benn euh, mbir moo ma jaaxal ci euh, dossier bi moo di Thioro dañ ko jël si benn yoon deuxième fois bi ñu imposer ko mu ñëw malgré son état de santé parce que loolu avocat am wax na ma ko na jot na fay joteek ñoom sax ñu yéegal ko cinquième étage pour auditionner ko mbir moomu naka la demee est-ce que mën nga ci dellu si waatal Oui, euh, euh, je pense euh, Tchorobinoko est convoqué. Il a été convoqué, je pense, lundi, convoqué, lundi. La première convocation, juste une petite rectification, la première convocation, euh, dañ ko téléphone une affaire concernant da nga réunion lundi c'était lundi Moi bi mu dem wax ci télé bi quoi donc loolu mu xëy mardi mardi mardi man maa ko yóbbu quoi. Mhm. maa ko yóbbu ñu dem euh, bi ñu demee donc euh, cybercriminalité la ñu dem donc euh, ñu dem foofu comment dirais-je en fait l'interrogation devait se passer au cinquième étage pour dire vrai le premier jour elle a pris l'ascenseur Thioro en fait elle a elle a elle a une grossesse un peu difficile donc euh, je pense que nous connaissons télé on a euh, à chaque fois elle parvenait difficilement euh, pour respecter une mission. de 3 heures à 4 heures de temps elle par presque chaque 30 minutes elle se déplace donc le premier jour pour dire vrai elle a pris l'ascenseur ascenseur de l'indemne. donc avec respect hein pour dire vrai interroger quoi, qui quoi interroger donc euh, euh, elle a fait je pense par respect mu de de tu li ñu la mais xam nga tamit. Ah, tu n'as jamais eu de démêlé avec la justice mm-hmm. comment ça se passe nous problème plainte état de grossesse donc nous perturbation en fait c'est vraiment difficilement mu euh, jeexal ko mu ba interroger ba ci mu malaise ci biir en fait des palpitations euh, ñu jeexal euh, bi directement à l'hôpital quoi donc à l'hôpital le médecin a trouvé que ne je pense euh, déposer sur le dossier la colle était ouverte et xam nga euh, euh, le médecin a dit que l'enfant est en train de pousser pour sortir parce que stress ak grossesse en quoi euh, donc ci loolu ñu defal ko repos médical 10 jours 10 jours, donc euh, à compter de, je pense, du mardi, 10 jours de repos, bon, maintenir on va déplacer parce que Colby dafa tijjeeku et il y a, y a vraiment des risques, quoi. Donc, là, le premier jour, bi. deuxième jour, bi, euh, non, euh, euh, n'a pas reçu de convocation. Convocation, bi, euh, recevoir, quoi, quoi. Dañu, dañu woo téléphone euh, euh rassemblement yi yeewoo le le le le mercredi ci la gis ne l' observateur bind na que ne Coro dañ ko convoqué waat le le lundi le le le mercredi alors que moom il était pas au courant donc euh, ci la moo woo mu ne ba kat man dafa mel ni l' observateur bind dañ ma convoqué alors que man j'ai pas reçu de convocation donc loolu yëpp c' est ça peut être vérifié parce que hmm, son avocat mu nga fa woon et l' avocate n'a pas reçu muy euh, Aïda Sabara je remercie par rapport à elle n'a pas reçu de convocation non plus donc nous l'observateur quelques même pas 20 minutes euh, cybercriminalité ou encore donc de euh, donc dañ lay indil convocation donc ma ko passe mon téléphone bi ma passe ma passe mon téléphone bi j'ai demandé au gars que ni en fait Thioro dafa am repos médical dix jours mon ne non c'est juste pour jox ko convocation ma ko convocation loolu loolu loolu garaaw est-ce que tu leen proposer est-ce que duma ma ñëw jël ko.

Euh, donc bi ñu ñëwee Thioro elle parvenait pas à se déplacer ñu ñëw euh, bu ñu toogee may xaar ñu jox ko convocation bi parce que ba ma ba ma woowee def ma ne Thioro dañ ko convoqué pour après Korité gi donc euh, convocation bi lañ ko bëgg a indil mm-hmm. donc convocation bi lañ ko bëgg

indisponibilité, de l'aéroport médical 10 jours. Parce que qui son état, vous voyez qu'elle ne peut pas se déplacer. non, c'est, il faut que nous euh, Le gars, ça, nous pas, il m'a ne ma ne ne ne médical bi ma jox ko ko scanné ko envoyé le gars qui l'a envoyé euh, mu téléphone ñu wax mu ne non c'est acté mu

donc euh, elle mënu ci woon yéeg quoi. Mhm. ñu ne ma léegi lu ñu def ñu ne ma léegi est mën nga ko dugal sa oto ñu boole la ak benn agent ma ne ko woy ma jël ko dugal ko sama oto ñoom ñu jàpp ko jàpp ko jàpp ko ah mënu woon elle pouvait pas sama oto nii ah. jàpp ko yéegal xëcc kii ko mu yéeg di on a perdu presque cinq minutes pour coro mën a yéeg ci oto bi bi mu yéegee bon ñu dem cybercriminalité bu ñu yéegsee imagineel rek Pape Alé koo xamante ni yow. Hmm. pour nga yëg ci auto il a fallu askan ñoom ñu yëkkati la. kooku bu mu ñëwé le premier jour ascenseur lay yéeg pour dem au 5e mi nga xam ne ñu dem supercriminel te xam nañ ne immeuble bi 5e deuxième jour bi bu mu ñëwé mu né non ñu ne non du jël ascenseur bi escalier lay jël. pour quelle raison. escalier non je sais pas xaw ma je sais pas exactement quoi man je dis que mec mënul yegg cinquième étage kii col bi dafa col bi dafa dafa euh, bi wax et elle avait eu ce problème là hein, durant sa première grossesse Nous nga suivre durant sa première grossesse tu na presque cinq mois la est-ce parce que yalla dafa dogal ne moom ki bi euh, col bi dafa dafa hmm légui mënul cinquième étage wax rek raisonnable quoi. Hmm. ne pouvait pas bëgg forcer mu ni def Il euh, dañ ko dañu dañu avec euh, quand il est venu qu'est-ce qui se passe.

xaw ma nag dafa mujj ne yéeg wala kiiwul quoi mais après j'ai vu que ne parce que Corop depuis lors waxuñu quoi waxuñu nii. xaw ma ndax dañu ko dañu ko yéegal wala dafa am feneen fu ñu defee interrogatoire léegi après Coro Coro kiiwee na ma placé nañ ko sous mandat de dépôt. mais ci loolu kii néew loolu dër. bañ ko placé sous mandat de dépôt. comme retour de parquet. retour de parquet mu dañ ko ci la wax ne dafa war a dem tribunal. dafa war a gis le le le procureur. moom retour de parquet ñu ko doon yóbbu commissariat plateau mu malaise ñu yóbbu ko hôpital principal. waaw waaw léegi bu mu bu mu demee tribunal après jotul woon je pense jotul woon gis euh, le le le procureur ñu def ko wala gis na ko donc je me xaw ma exactement ñu ne dafa war a fanaan dafa am retour de parquet dafa war a fanaan euh, euh, plateau commissariat plateau avec seen état ñu jël ko.

Euh, elle elle a essayé de réanimer Coro def ay ay affaires yu bëri après ñu teg ci quelque temps ambulance bi ñëw bi ambulance bi ñëwee euh, amuñu woon ñu ku ko jàpp ah pour ñu dugal ko ci ci ambulance bi il a fallu à ce que ne donc ben journaliste boo xamante ni ñoog Coro ñooy liggéey ak euh, ña fa nekkoon ak man parce que ça semble dama ne dafa bu bu il faut que des gens très forts nous ko mën a ba nga ne bouger parce que c'est pas sûr mon ne bu tànk yi tijjee ko ba tijjee ko rek wóoru donc ñu jagar jagatee ko yóbbu ko dugal ko ci ambulance bi yóbbu ko hôpital principal bi mu démé hôpital principal le médecin a dit que ne bi mu ko réanimé tijji ko ba paré defal ko écho mais ki mënul dellu légui nii il faut que il faut qu'elle passe la nuit à l'hôpital

yóbbu nañ ko camp pénal. légui bon mu doon affaire bu dommageable quoi. ce dommage waaye c'est dommage vu ce traitement bi nga xamné ne infligé nañ ko pour une femme enceinte de 7 mois et qui a des problèmes par rapport à sa grossesse mais légui dama bëgg ñu wax ci euh, li nga xamné ne. xaw je mais mën juste quelques commentaires par rapport à Lolo si vous me le permettez. je vais quelques commentaires parce que man mm-hmm. dama gis ne. Mm-hmm. loolu euh, c'est une appréciation personnelle. Mm-hmm. man dama il y avait une volonté manifeste de faire mal à Thioro Mandela parce que y y avait une volonté de l'humilier. il y avait une vraiment une volonté de l'humilier parce que. Papa man li ma mënul comprendre mooy koo xamante ni yow boo ko woowee mu ñëw. Mhm. boo ko woowee mu ñëw malgré sax bu amee repos ngeen ne na ñëw dañ leen koy indil je pense même bu nekkoon ci civière sax dañ leen koy indil ci mhm. parce que tamit Coro n'est pas exempt. Mhm. de de de de de de droit. elle comme tout le monde. bu koy yoon woowee day dem mais. li ma mënul comprendre mooy lan mooy lan moo waral lan moo fi jaar nga déplacer ay nit ñu ñëw fekk Coro fi muy dund ak ay nawleem devant sa fille ngeen war ko jagat jagati jël ko yóbbu. un traitement inhumain. loolu traitement bu bu bu bu bu boo xamante ni mënoon na ñàkk te tamit juste ci interrogatoire bi li may wax nii yëpp dafa am ay seede maanaam. waxuma rek ci sama bànneexu ba kenn wala ma samay jëkkër ji mhm. grand luñ ku ñuy inter ci affaire topp ka lan mooy ci ndayu policier benn policier boo xam ne ñëw fekk na ko ne ko coro nga ne yow doo noppi ci internet bi ngay nekk du la neex nga wax yow ak li may wax nii dafa am ku ma ku ko bëgg xam rek mën nga lépp tur gi may wax ni nga dem laaj ko mu ne yow ak Maty Sarr Niang ngeen ne doo leen noppi ci internet bu ngeen nekk lu leen neex ngeen wax ko Macky Sall ak état bi mais Pape may laaj laaj ci affaire topp kaa lu mu jotee da ngaa war a noppi ci journaliste. mais foofu laa bëggoon ñëw ak yow ma ne la. foofu laa la bëggoon ñëw ci laaj ne la est-ce que balaa ñuy ñëw ci affaire topp kaa bi ak liñ ci wax mais est-ce que liñ def nii Thioro du parce que day def dafa am engagement bu sénégalais yëpp reconnaître mu nekk journaliste di wax dëggam ci réew mi est-ce que du loolu moo tax tamit ñu réserver ko traitement bu inhumain bi parce que man jaar naa ci. waaw léegi Papa Alé lan la laa bëgg xam sénégalais yi laay laajte dañuy wax rek te yàlla tax. parce que fii je pense gëm naa ne euh, euh, muy jullit muy chrétien yi fi nekk chrétien yi fi nekk woor nañ ñoom it ba weer bi jeex. Mhm. quarante jours jullit yi fi nekk yëpp je pense ñoo ngi door a terminer ñoom it seen mois de ramadan ñuy carême ñun ñëpp dañoo woor kon ku ci wax rek dama bëgg nga def seede ci weer bi nga xam ne moom lañu ñu génn. Mhm. coro ça presque loolu Sénégalais yëpp mën nañ ko gis ku xool ci internet beeg ku xool ci Facebook beeg yëpp dañ ko gis ça fait presque près de plus de deux ans ñu naan Coro Coro Mahou Mandela ñoo ngi koy fexeel pour jàpp ko est-ce que yaa ngi dégg bu baax. Coro mm-hmm. Mandela ñoo ngi koy fexeel pour jàpp ko su deful ndànk dinañ ko jàpp ma bëggoon xam papaale journal li euh, euh, nit man li mu bëgg a xam rek mooy nit da ngay jaay yàmbaa ñu ne non boo bàyyil jaay yàmbaa dinañ la jàpp nit jaay drogue ñu ne. boo jaayee drogue danañ la jàpp nit ki ngay sàcc ñu ne boo sàcc danañ la jàpp mais journaliste buy wax ñu ne ko ba noppi mais dans quel pays sommes-nous dans rek laa bëggoon xam parce que. tamit journaliste yu xalamal Macky Sall rek ñoo fi nekk euh, libre euh, di wax lu la neex mais journaliste yu dëggu tey wax dëgg moom tu es en sursis loolu xam nga ko. mais Papa Papa Ale lii ko wax. Hmm. du kenn moo man maa ko wax Papa Ale. Hmm. elle a reçu mhm. une demande de rencontre mhm. avec Macky Sall wax nañ ko nañ dem ñu boole la ak Macky Sall nga daje nga jàkkaar nga nga nga gis Macky Sall je me dis que Thioro bu nangu woon dem gis Macky Sall mhm. problème bi problème bi dinañ ci ñëwaat sénégalais yëpp dinañ xam fan la dëgg féete te kuy waxit bu ñu wax ci for gis nga nit euh, je pense euh, euh, Georges Bernard Sow dafa daan wax naan Mm-hmm. la première victime de la guerre mm-hmm. c' est la vérité mm-hmm. ku nekk na nga li ngay wax na nga ci ut sa aqulaay taalaa rek tax ngay wax parce que bul xool gis nga média yi di wax dinañ ci wax ba dinañ ci waxaat parce que moo waxaat la beneen citation boo xam ne bi euh, ça euh, illustre le cas de Thioro Malcolm X moo wax ne Si vous ne faites pas attention, les médias vont vous faire détester les opprimés et aimer l'oppresseur. oppresseurs. Mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé. qu'est-ce qui s'est passé. parce que benn lien mu partagé si la ñu sukkandiku. pour topp ko est mën nga ñu expliquer lan moo xew ak lan mooy responsabilité Thioro ci dossier boobu ñuy wax. waaw léegi loolu loolu papaare ba ma ko laajee dinaa ci kontaan pour tontu xam nga sénégalais il faut que tamit gis nga nit xel xel du jariñ pour le du lekk xel pour xalaat la xel moom du pour lekk pour xalaat la nit ki da xalaat. boo dul xalaat nag na doon leneen man je parle aux gens qui réfléchissent ni xalaat rek laay laay waxal képp koo xam ne da nga jàpp ne xalaat xalaatoo man waxuma ak yow te nga jéggal ma tooñu ma kenn euh, corom dañ ne dafa publier dafa dafa partager waxuñu publier waxuñu publier de xam nga publier man je suis digital manager. xam naa luy publier ak luy partager Pape Alé yow mii. Mhm. chaque jour booy live man sa lien dama koy partager. bëri bari na ci kay moom am na ñoo xam ne sax dañuy def non am na ñuy def mieux ñoo xam ne dañuy jël sama man du ma live Facebook mais am na ñu koy jël yóbbu ko ci page Facebook. waaw dañ koy publier léegi dañ koy publier. waaw ñooñu am na ñuy jël sa yow papaale. Mm-hmm. yow sa sa sa sa live jël ko publier ko. Mm-hmm. mais léegi papaale ñooñu kooku yow boo waxee lu rëy. Mm-hmm. est-ce que moom sa langage. non. yow Papa Alé li ngay wax yow yow yow yow tu le responsable de tes propos mais ku ko partager est-ce que moom yoon dafa ne moom dañ ko war a te moom encore une fois Thioro publié wul lien publié wul publié lien boobu daf ko partagé ak ay contagam daf ko partagé est-ce que ngi dégg bu baax jël lien bi partage envoyé ko nit léegi xam nga partager boobu noonu. Mhm. ci la ñuy toppee coro. mais mais li ñuy wax ne affaire affaire escroquerie boobu ak li ñuy wax tamit ne. Ah, dafa moom moo wax affaire jigal affaire u pervers loolu mën nga ñu ci indi ay leeral. pour sénégalais xam dëgg. léegi loolu laay wax. voilà waaw dama bëgg rek dëgg moo bëgg mu leer ki ñuy wax loolu jigal. Mhm. damay jéggalu ci dama koy encore une fois moom laay su amee sa dans cette histoire là ku may jéggalu moom la parce que c'est pas. ku ku nit ñi xamul woon ku wax ku xam képp moo ma ñaanale jabar man mii. naa jigéen man mii moom moom moo ñaari coro moom moo ñaari coro maanaam ku koo xamante ni xam nga le problème mooy dañu wax man ak jigéen ñoo doon def ñoo doon def ñoo doon def euh, euh, production Sen TV et ils n'ont même pas écrit jigéen ñoom ñoo les médias ñoom ñoo dem ba génn dañu ne. le producteur de Sen TV producteur de Sen TV man la woon ak moom mm-hmm. xam nga kon Coro limu mu li mu partagé mm. jëkkëram est concerné parce que tour amu fa est-ce yaa ngi dégg bu baax mm-hmm. parce que lu dax ma ne la tur amu fa xam nga ko loolu kon papa su papa papa ale mën nañu ne sax maxu la jëkkër ji la mm-hmm. parce que ki loolu parce que suñu duggee ci détails yi di nga xam lu tax mu wax loolu parce que ki doon def live bi daf doon wax ñooñu bu leen tudd tur parce que bëggul tooñ est-ce yaa ngi dégg bu baax. Mm-hmm. muy te Papa ma leeral de xam nga lii ça date de de temps. non. ça date presque de un an cinq mois. du du wala bu dem ba kii dem wala kii de na cinq mois. Mm-hmm. mais euh, directeur. Mm-hmm. partage boo xam ne ça date de presque un an cinq mois pour wax ne gars yi li may wax ni yëpp ku ku ko bëgg am lu leer ku rek bëgg rek tax a jóg mën dem ba vérifier nga di vérifier. Mhm. léegi. Mhm. grand. loolu noonu mu partagé parce que loolu xam ne mooy scandale Miss Sénégal yi fi amoon. Hmm, je me rappelle très bien. scandale Miss Sénégal te ma wax la nga vidéo bi xam nga nit sooy wax papaale. da ngay wax sa akulaay taalaa rek parce que nit ki tamit doomu doomu aadama encore une fois xel du pour lekk pour xalaat la il faut que ñun ñëpp ñu réfléchir parce que encore une fois je risque de répéter cette citation de Malcolm X mm-hmm. quand il dit que si vous ne faites pas attention mm-hmm. les médias vont vous faire détester les opprimés et aimer l'oppresseur directeur moo wax mu ñëwaat ci loolu ban nit ki bu la dafa partager benn lien ne Sénégal lien n'est pas fermé c'est accessible à tous les Sénégalais te yaakaar Sénégalais yu bëri seetaan nañ ko xam nga lien lan. live Mamiko bu bu bu bu mhm. féministe xaw ma Mamiko bu bu femme chic la live est-ce que yaa ngi dégg bu baax. maa ngi dégg waaw. Mamiko boobu noonu bu muy interroger ay liis ñuy wax. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg bu baax. waaw léegi te lien boobu su ko moom mu partagé ak euh, koo xamante ni moom jotoon na échanger ak moom par rapport ak li tax mu xamanteeg administrateur boobu parce que man am na xam naa ay administrateur page. kon Papal yow mii. waaw bien yow mii sa page Facebook. sa page Facebook. Mm-hmm. soo ma bloqué ma bloqué yow da ngay sa bloqué combien de nga bloqué ku la ci contacté wul doo ko débloqué. bien sûr. ku ci ku la ci contacté wul doo mm-hmm. Coro dañ ko bloqué xam nga soo bokk kenn la bloqué. Mm-hmm. Coro dañ ko bloqué je pense message yëpp les messages sont vraiment ñoom ñëpp message yëpp ci ci sur la toile dañ ko bloqué ma wax pourquoi Coro bokk ci topp ka mu leer Coro dañ ko bloqué. ci groupe bu ñuy wax topp kaa Pape xam nga topp kaa ñaata membre la am. non non. topp kaa bi ñu doon xam nga ñaata membre la am cent mille membres cent mille presque presque cent mille membres Pape Alé cent mille yoo xam ne ay jigéen la ci nekk maanaam góor bu fa dugg yaa fa duggal sa bopp mais cent presque cent mille membres maanaam sénégalais yi nga xamante ni dañuy dugg ci réseaux sociaux yëpp. trois Sénégal deux Sénégalais yoo jël kenn ki bokk na ci. Mm-hmm. est yaa ngi dégg bu baax. Mm-hmm. message privé Coro message privé la envoyé publié de Coro ba léegi xoolal jusqu'à l'extinction du soleil Papa la ñii du ñu génnee publication boo xamante ni Coro moo ko def. waa léegi ma laaj la ma laaj la benn mbir foofu lu tax ñuy wax affaire escroquerie.

ma ko teg bët mësu ko teg bët laa la wax te papaale man loolu tiituma ci xam nga tax ma ne tiituma ci papaale mm-hmm. papaale mm-hmm. gis nga xam nga yoon man nag sincèrement papaale di peut-être que mën naa berte ñu bëri mais papaale man gëm naa ne juge yi ëpp ci ñoom mm-hmm. seen liggéey dinañ ko def bu baax parce que papaale waaw allo allo. allo allo ah? waaw dafa daggoon. waaw nga ne juge yi dafa loo xamante ni juge yi man sincèrement gëm leen wóolu naa leen boo papaale man papaale man ak moom dañoo ànd historia papaale uh-huh. di nga indi di nga indi di nga indi euh, nu mu euh, wane boo xam ne wéef wala orange money wala transaction. Mm-hmm. transaction les traces transaction. Mm-hmm. encore une fois jusqu'à du soleil la. mës nga am problème mu xaalis ak coro ñëwul nga manifesté wu que xam nga tax ma wax la. Mm. Pa man dama toog di ma gis nga damay damay damay damay wan damay jox avocat bi dina justifier man sama revenu mensuel. Mm. est yaa ngi dégg bu baax. Mm. pour mu justifier que ne coro coro. Thioro. nekkul ci besoin bay def yenn yi. Eh, eh, nekkul ci besoin Thioro man je reçois plus qu'un ministre je gagne plus qu'un ministre est-ce ngi dégg bu baax je gagne plus qu'un député normalement waxuma la bu bu jaaree feneen. Mhm. mais Thioro ban besoin la war a mën a am ba ne day def escroquer ak ak ak ak état état bi ak ak euh, li muy li muy li muy li muy li muy li muy kii li muy liggéey. Mhm. dama wax rek te man amuma ñaari jabar amuma ñetti jabar. benn nga yor benn jabar laa am ak benn doom. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg mhm. maanaam li ma yor coro coro da ci mën na ci dund jàppale ci ñeneen est-ce yaa ngi dégg bu baax. Mhm. coro képp koo xam ne mës nga ne coro amul folie amul ay besoins yu extraordinaire dama nela la mi nga xam ne man maay man maay jëkkëram de ma wax leer nit ñi nga xam ne dañuy déglu lu ñu xam kan mooy coro. xam nga nit nit coro man moomu coro moomu ma coro bu duggoon ci escro ex escroquerie man mii man mii ci jëkkëram man mii ci jëkkëram laa la wax maa koy lijjanti mais xam naa coro est-ce que xam nga ne papaale coro mhm. dama bëgg ñuy déglu rek ñu xam kan mooy coro mhm. xam nga ne coro billahi wallahi wa taala ak koor gi ñu génn mhm. su ma jëloon su ma jëloon un million teg ko ci trois deux semaines après billahi wallahi wa ta'ala taalaahi choro du ci laal 1 franc bu ci laalee 1 franc bu ci laalee 1 franc so ñe dina la li da mo ki won li ak li ak lii coro mësuma fekk billahi wallahi wa ta'ala taalaahi mësuma denc sama xal nag ita choro daf ma jël xam kon ko xam naa ko elle n'a pas un problème avec l'argent mo xat la benen anecdote borom kay nettal do wax rek pour nit ñi xam au moins كان موي جارو جارو دا مكو موسى يرال خالص يرال خالص تي اي ذكر جابر رك نيت غاندي دام غانوك الجو كي ما جوخو ما جوخو با بارك خم ذكر جابر لول دا تي اب جارو مو خاوا 30 بلوك دا دا مو دك 30 تي فو تي كي جارو man tek sama xaliss ci jël ci jël ci 10000 hmm bo bok legi ëpp na 1 an ëpp na 1 an la la wax bo bo tu 2 ans Mhm. Coro na mhm. dafa toog toog ba suñu yàgg mu gis ne mu gis ne moom deux ans deux mille deux mille dix mille la mhm. mës jël ci man ndax man maa ko yoreloon mu mu mu wooma mu ci wooma mu demaat dama la ci dama lay jéggalu ci loolu bés kat yoreloon nga ma ma fayeeku la nga bañ nga teg sa xaalis ma jël si dix mille waxuma la trente mille dama koy yoraloon de ma jël si dix mille est-ce que yaa ngi dégg bu baax kan mooy coro. très bien mu ciy jéggalu est-ce que moo waxaat la beneen. Papa Alé bu kii dama bëgg a nit ñi xam kan mooy coro balaa ñu koy chuter coro quand quand elle reçoit son salaire. billahi wallahi wa taala coro dafay jël salaire boobu dem fayal ci ay jarbaatam. xam nga bu fayee bu fayee jarbaate ba pare. Mm-hmm. billahi wallahi wa taala xam nga ñaata koy dese. Mm-hmm. dix mille franc dix mille franc. ñoo xam ne moom mooy fay seen étude. mais léegi léegi yow euh, Maxu nan nga dundee. waaw lynchage médiatique bi ñu def ci dossier bi. Euh, génn dossier bi xam nga dañuy wax waay euh, document confidentiel sorti mais dama na audition. ak waxtu bu ci journaliste jotee wala jotee rek mooy ñooy mooy ñaka dañ def <laughs> foofu rek source bi benn source la ma doon lynchage médiatique bi ñu def coro noonu nga ko dundee xam nga li ma wax sànq dama ne la dama ne la mm, àdduna ñi doon wax dama lay wax rek damay jël ñi doon wax ñi doon def lynchage ci Macky Sall ci ci ci coro yëpp mm-hmm. mais Dramé c'est la même presse moom moo waxoon ne Aliou Ndao imam Aliou Ndao dañ ko fekk ak ay bomb dañ ko fekk ay ay téléphone satellitaire dañ ko fekk ay millions c'est la même presse maanaam c'est le bras armé du gouvernement c'est le bras armé de l'État c'est le bras médiatique de l'État loolu nag ku gëm ne nu mu tuddati ay ay ay rebelle dañoo ñëw fii tas ci dëkk bi ku gëm ne force ma ma waxaat leen leen ci coro ci campénal du nekk coro xam nga xam nga kala la bokkal kan la nekkal. Mm-hmm. Ami Dia. ndeysaan. Ami Dia bi ñu ne dañ ko dañ ko euh, dafa recevoir vingt cinq mille ñu tëj ko. vingt cinq mille ñu ne dafa daaneel nguuru Sénégal ci vingt cinq mille. waaw da doon noonu la nekkal coro gënul Ami coro gënul coro gënul Ami Ndaw

xam nga coro am na benn euh, sit boo xamante ni ak benn ko topp na defal na ko indi. Mhm. te soo xoolee damay bëgg rek ñoom ñooñu ñi nga xam ne kii la parce que man laajoon nañu dem ci bind li ñu bind ci indi ak li ñu ci biir xam nga lan lañ bind ci biir. coro mhm. dafa partagé benn vidéo video mais grand ma wax la benn affaire grand. Mhm. vidéo bu disponible ci ci ci ci YouTube disponible ci Facebook grand mën nga ci chantage nit. te pas possible mënoo boo xam ne disponible la yow mais grand soo ma ci ñaanee cent soo ma ci laajee cent franc ma ne la joxuma la ko. parce que c'est déjà c'est déjà public c'est déjà public. c'est déjà public ne parle même pas de coro je parle même même femme bi ñuy wax noonu kii nu mu tudd euh, te te ma wax la benn affaire lu laa bañ. ba mhm. démb ba démb man jigéen moo ma wol boppam ne ma grand ñii li ñuy wax ñii yëpp ay nit a ngi may woo nan man demal nga porter plainte mu na leen man ku may porter sama jabar. ay nit moo koy woo di ko wax dama nga porté plainte mu ne man may ko porté plainte sama jabar sama jabar laay porté xam ne maa ko ñaani woon mais grand moo wax la benn affaire lu leer. Mm-hmm. am na loo xam ne seet personnel. Mm-hmm. Euh, te man relation pour man dafa dafa sacré. Mm-hmm. mais ki may waxal xam na peut-être que yow xam nga. man lan laa sekk ak kooku. maanaam kooku grand bu amoon bu amoon man su ma amoon problème mu cent mille. moom bu ko yore dafa ma koy jox. man bu ma amoon problème mu cent mille moom bu amee problème mu ko ñëwee da ko fiy da ko fiy jëlee dem yoonam te justifié te koo xamante ni koo xamante ni laa la wax naka nga mën a yow nga defal chantage koo xamante ni yow vidéo boobu noonu escroquer da nga bëgg a escroquer ni di ko laaj vidéo vidéo boo xam ne yow vidéo bi sur la toile ku ko bëgg am ko <laughs> grand loolu loolu grand bu kii wax bu feebaree Mm-hmm. nopp yi koy déglu dafa xaw dafa wér. Mm-hmm. man li may laaj nañu leeral Sénégal Sénégal yi dañ leen Sénégal yi ci boppam ñoom ne il faut qu'ils se posent les xam nga àdduna gis nga àdduna qui veut noyer son chien l'accuse de rage bukki bukki mm-hmm. bu bëggee lekk doom ji danaan ko dagaat donc en réalité en réalité cor ils se sont histoire de topp kaa parce que xam nañ ne sénégalais yi topp kaa bi métti na leen ñu bëgg a régler problème mu coro loolu kasa la du leneen te jusqu'à l'extinction du soleil grand du amul sénégalais bu mën a kooku mm-hmm. noonu kooku noonu laa la wax xaalis jóge ci kooku ñëw ci coro mm-hmm. est yaa ngi dégg bu baax mm-hmm. te Thioro Thioro encore une fois Thioro est à l'abri du besoin macha allah alhamdulilah ñu koy sant yàlla Thioro est à l'abri du besoin dama ne la Sénégal xam nga kii il faut que tamit ñu xam réputation mooy kat grand waxu je ne parle même pas de topp kaa dara sénégalais boo xamante ni laa la wax sénégalais boo xamante ni je ne parle je de Thioro am gis nga ne Thioro yoreel na la cent franc ba su la fay. wala mës ngaa am problème mu xaalis ak coro manifeste toi amul amul mais grand grand hmm. coro bi ñu ko nee dama nga nga gis coro bu doon défendre le troisième mandat nii hmm. coro kenn du ko ci woo bañ ko nee kaay gis Macky bu gisoon Macky lii nii du ko ci fekk coro nag xam nga la jàpp dafa nekk mission rek ma leen rek ma ci métti hmm, te loolu damay ñaan sax les autorités man damay ñaan damay ñaan wax dëgg yàlla bëgguma leen tooñ tamit mais grand coro ki mu ëmb deful dara musul def live mhm. musul saaga Macky mhm. ki mu ëmb noonu musul live musul saaga Macky te koy topp kaa te même bu juddoogul il a des droits grand xam nga ces droits là mooy lan tey jii damay wax ne coro bu xëyoon avorté di kii di kii nu mu euh, comment on encore ki def avortement mais grand ci yoon da koy jàpp tëj ko xam nga lu tax ñu koy mhm. parce que Coro n'a pas la euh, n'a le droit de vie sur euh, le bébé qu'elle porte amu ci droit de vie. waru ko waru bu ko neexee mu mu mu mu mu faat ko parce que dañuy jàpp ne kële dafa am ay droit may ñaan Coro Coro. Mhm. ñoom may ñaan autorité rek damay ñaan rek ñaan rek laay def. forcé wu ma kenn damay ñaan rek su dee mën naa nekk coro nañu ko bàyyi état bi mu nekk àndanul an àndul ak la vie carcérale mu dem këram. saa bu ñu ko soxlaa woo ñoom dañu jàpp ne bu ñu ko soxlaa woo ko noonu bu jàppee bu ñu jàppee sax ne bu ñu jàppee ne coro mi kat am na doom te mën na ñëw te dañ ko war a denc grand ñu jël ko denc ko bàyyi doom parce que xam nga tax grand coro bu fekkee bu fekkoon ne gis nga coro. Mhm.

Fan, fenn mujjul fenn kon Coro grand il l'a soit elle l'a choisi Coro moo choisir lii mhm. parce que ñaar la grand ñaar dans la vie il y a il y a y a gis nga lii dans cette situation y a deux choix mhm. soit tu te bats soit tu te couches mais quand tu te couches grand ne te plains plus mhm quand tu te couches tu dois décider d'accepter ce que tu crois parce que suis pas ne je suis pas divin parce que quand tu as décidé de respecter de ne pas combattre ce que tu appelles l'injustice mais ne te bats plus mais ne te bats pas mais aussi ne te plains plus. vois il a décidé d'être debout c'est son choix Thioro pour dire tu intermènes internet diffamation avec lui. mais le grand. am na benn compte bu nekk ci Facebook. amul lu mu yàqul coro coro coro xam nga parfois nit ñi dañuy wax coro mais xamuñu coro man mii xam na jëkkëram laa. mën naa leen kooku noonu benn benn benn compte bu ñu naan benn ministre moo amul lu mu dul yàq coro ci wax ju bon mais kenn mësu ko inquiété wu te tamit grand Sénégal fii laa gis grand ñu arrêté nit porte plainte amul. foro amul plainte publication boobu mu def amul ci plainte de y a pas eu de plainte ci publication boobu noonu ñu nekk non pas publication c'est droit jum partage boobu mais amul ci plainte mais grand ku bit nag ku def émoticône mën ngaa tëj ku partager lien waaw émoticône Ousmane Ousmane Diagne émoticône ko mais ku tëj ku def ko def émoticône di nga tëj ku def lien man xam lan laay bañ. Mhm. lan laay bañ ça je le dis Thioro n'a pas été arrêté pour comment dire ci kaw top ka Thioro a été arrêté pour avoir exprimé ses opinions loolu la. Mhm. dama ne la grand encore une fois. Mhm. bukki bu bëggee lekk doom ji def kanam da ngaa dugg xaj. dëgg la Thioro kenn tëju ko ci topp kaa parce que boudé dee grand lima doon wax ci ki bi gis nga bu doon topp rek li ñuy tudé ñeuf dafa bok grand suñu kër yi jigen dafa fanaan deug <laughs> la jërëjëf jërëjëf maxu ma ngi lay sant di la gërëm di la massaw euh, ci euh, li nga xamné dal na cioro ñu xam ko bu baaxa baaxa baax mu nekk euh, une femme engagée pour le devenir du Sénégal. ay ci am nga droit bi Pap loolu laay tëjee. gis nga mm-hmm. Pape Alé man yàlla rek laa jot. Mm-hmm. Eh, Dieu parle par des signes. Mm-hmm. yàlla ay signes la lay waxal et eh, eh, le meilleur juge sur cette terre là. Euh, c'est le temps. oui le temps dina leeral lépp gëm naa loolu. incha allah mais dama bëgg rek ñu xam loo xam ne c'est des signes. grand coro kan la tuddee boppam. Mandela. Mandela. Mandela ñaata at la def ci kaso. vingt six ans presque vingt sept ans presque vingt sept ans. parce que la la Mandela Mandela def def ci kaso mm-hmm. mais grand ma wax la coro. Mm-hmm. xam nga yow su ma duggee jëkkee gis coro. waaw mosoo ko gis. mosuma ko gis xamoo ko woon sax man nga xam man nga xam ci seen TV dañu xa dañu doon liggéeyee liggéey fa loolu lay xamante ne. yow mii. Mm-hmm. dañ la indil coro dafa ñëw la. waaw ñu indil la carnet wu coro xamoo kan mooy coro. waaw. Coro Diouf xamu ka mooy Coro. Mhm. yow ak Karim Xrum Xax la seeti woon Sèbi bu topp mën nañ dem seeti ñoom Papa la ñu seet seeti ñoom Papa la ñu xëy suba teel. Mhm. dem seeti leen yow ak Karim Xrum Xax. absolument. man man man. Mhm. ñu ànd man ak moom ñu dem Sèbi ba ñu demee Sèbi Kotaat gannaaw. di leen seet Coro pour dire Sénégalais rek Dieu ne parle Coro ci yoon bi. ci la xamé dafa ëmb parce que wala tax. Hmm. xam nga gis nga yow cooro bañu nek nekk do doon la benn ci de faiblesse. bien sûr. au contraire mo la gënon au contraire mo la gënon de dëgër. mo la gënoon le dëgër. moo remonter le moral. Ouais, absolument toi tu supportais pas le fait de nous voir en prison. moom mu dugg ci nama damay témoigner mu dugg ci nama grand alhamdulilah. vraiment gis na sa comportement te lii laa doon xaar ci yow mooy wane nga détermination ak dignité tu n'as pas faibli même en prison je suis content je suis rassuré mu wax ma loolu. Mm, waaw. waaw jour boobu noonu. Mhm. grand bi ñu ñibbisi. Mhm. su la ñu nga coro ni nga ko gisee noonu ba ñu ñibbisi ci la am benn malaise bu extraordinaire tëdd ci oto bi mu di di di di xalangu ngir di métti mënul mu affaire bi métti ko métti ba mu dee ma ne ko mais madame yow kan nga indi sa règle sax est ce que du kii mu ne ma loo lañ est ce que du ma def test bi mu defee test. Mhm. ci la xam ne elle est enceinte maanaam ba mu jugee tur euh, ba mu jugee euh, sëriñ bi daal seet si leen mu ci la xam ne elle est enceinte elle était enceinte mais grand grand bu dee ay signe rek yow signe ngay xool. Mhm. grand war ngaa xam ne coro ci lii ci mission la nekk. tout à fait. coro ci mission la nekk. man lépp lenn rek laay ñaan ci coow li li muy bëri bëri parce que bu doon coro rek ñu jàpp ko tëj parce que bu làmmeñ du lekk boromam morom borom moromam te ñorul li ñuy wax yëpp ñun on va rétablir la vérité. Hmm. est-ce que yaa ngi dégg bu baax. Hmm. grand ñun euh, xam nga ma bu baax man ba ma juddoo ba léegi damay xeex. Hmm, léegi laa décidé rek ma mettre derrière man ba mu juddoo ba léegi damay xeex képp ku ma woo ci xeex man moom dañuy jàpp tëj ci kaso rek ñu toog ñu mais man ba ma juddoo ba léegi sama maam amul sunu sama maam amul kenn koo xam ne day daw coro coro sëtu buur la mhm. coro baayam nekkoon représentant Serigne Touba maanaam xalif général des Mourides ci Pikine gii mhm. coro barke alxuraan laa la buñ ko proposé woon deux milliards lu tax li mu gëm ni ma bàyyi ko est-ce ngi dégg bu baax maa ngi dégg loolu laa bëggoon xam mu leer ñu xam ne ne kan mooy coro très bien euh, li ñuy wax rek mooy ñun tamit dañuy lancer benn message euh, autorité euh, judiciaire yi parce que dafa naa ne dara jaru ko fi Coro mi ngi ëmb amoom complication li ñuy ñaan autorité judiciaire yi nañ ko bàyyi jox ko liberté provisoire parce que pour moyen que ça jofal nañ ko fi ay nit ah ñu bàyyi ko mu dem këram buñ ko soxlaa saa su ne mu nekk dans les dispositions ñëw wuyu ji. parce xale bi mu ëmb waaw moom lay wax rek ñun man da ko ñaan ba pare man tamit dama koy ñaan pour xale bi nga xam ne moom la mm. euh, ëmb mm. organisation féminine yi tamit dugal ci seen loxo pour ñu bàyyi ko mu dem toog këram saa buñ ko soxlaa dawul dàyyiwul nañ ko placer contrôle judiciaire ñoo xam parce que fi mu nekk nii dafa sàppe